Bara parrainage bi euh, à votre niveau yow daan naa la dégg nga naan Ousmane Sonko mooy sa candidat. candidature am candidature am moom dafa mel ne jamono ji non ba tey mooy sama candidat. am nga ci yaakaar ba tey. mais bu ma ci amoon yaakaar du ma ñëw toog fii. non je veux dire mën na bañ a doon Ousmane Sonko mais ba doon keneen ku porté projet bi. mais mën na bañ a doon. Mhm. c'est une éventualité. ndaxte dafa am une entreprise boo xamante bu Macky Sall li jiital ak à tous les échelons pour empêcher Ousmane ko nekk candidat on a vu ce que la DGA a fait une décision de justice ñëw un commissaire de police ne je n'applique pas cette décision de justice parce que état bi dafa fas yéene déposer recours Sénégal yëpp di ko gis une illégalité bu ñëpp xam ñu koy gis parce que démb le mandataire dem na CDC. Mhm. déposer caution ñu jël quittance jox ko. le lendemain directeur général CDC génn ne non DG jox nañu liste boo xamante ne moom bokku si ñu leen jox attestation. c'était pas eux de faire mais aujourd'hui moom du aw mu ngi mel ni cette TV nga teg fii sa gardien bi si si port bi nekk samay invité di wag di wag diw bu ñu yéegee bu ñu ñëwee ñu yéeg. ma ñëw taxaw mu ne man lan nga xalaat ci ci ci kii ci ci ci ci ci sujet bi wax ma sa li nga war a répondre boo ma ko waxee bu dee dëppoo nag ak man li ma yaakaar ne moom nga war a def ce n'est pas de faire ça mm-hmm. gis nga je dis une jour dama lay wax gis nga le Sénégal ne va pas s'arrêter avec Macky Sall Macky Sall amal nañ ko teraanga xeexal ko moom nguur ba jox ko ko en 2012 il n'était pas le mieux placé ah en 2012 si nous on n'avait pas fait le 23 join su ma ne nous waxuma ñun man Bara Diouf mhm. par du peuple sénégalais si on n'avait pas fait le 23 juin la loi serait passée vingt cinq pour cent Wade avait trente deux pour cent au premier au premier jour il allait mhm. doole sénégalais yi ñoo ko teg président mu utiliser doole sénégalais yooyu nga xamante ne lan moo taxoon ñu doon xeex loolu parce que ñun dañoo gëm promesse démocratique du Sénégal indépendant Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ne démocratie daf fay jolli avant muy jolli si dëkk africain yi multipartisme bi ñu koy wax dans les autres pays africains après le euh, le congrès de la boule en quatre-vingt-dix ñuy def ay conférences nationales dans les années quatre-vingt-dix fekk na Sénégal depuis les soixante-quatorze wala même dem même pendant la période période coloniale amoon na ay partis yu bari. mais cette démocratie moo fi continuer ba tey ah. démocratie continué fi ba tey loolu c'est démocratie continué fi ba tey le Sénégal n'est plus une démocratie. élection tey dem na bu demee ba ñoom. ñi nga xam ngi am ba ku gañe nangu ku gañe nga nangu. agenda euh, ak euh, démocratie bu doon alphabet yow da nga ko réduire tey à la lettre E élection. démocratie c'est plus que ça c'est que des élections seulement il faut qu'on soit sérieux man fii laa toogoon ci benn plateau ma ne leen gis nga ku empêcher Ousmane Sonko nga nekk candidat di nga ouvrir une une période d'instabilité boo xamante ne li koy régler même dans cinquante ans du tax xam nga moo tax. même ñoom le relais médiatique de l'APR dañuy toog si dëkk bi ne Ousmane Sonko bu nekkee candidat il gagne à au premier tour loolu mooy lan mooy sénégalais yi kii lañu àndal Macky Sall bu comprendre woon bu soloon yére bi nga xamante ne moom lañ ko jun bëggoon solal 2012 bu ko soloon léegi dina comprendre que ne mbir mi nekkatul moom sa personne seen le Sénégal. mais mënul nga sénégalais aspiration yi sénégalais non non non même yi sénégalais yi amoon mooy ne promesse démocratique gu Sénégal mooy ne groupe bu fi organisé wu. nekk majoritaire nañ la jox nga diriger nga jéem ci Sénégal parce que dañoo bëgg defar Sénégal te instant bi nañ wax ko nañ wax ko ñu bëgg ko koo ko laaj nga wax ko ñu bëgg ko ñëpp xam nañ ne Sénégal Ousmane Sonko moo fi majoritaire. mais mais vous demandez comparer Bassirou Diomaye bu paree vous continuez à mener un combat pour Ousmane Sonko est-ce que tamit nekku leen di di voilà di divertir nit ñi wala disperser seen ay forces. déedéet booy xeex état bu nekk ak looy xeex même équipe bi parfois mu wàcc def défense basse. <laughs> des fois mu def bloc médian des fois mu def bloc haut état bu nekk ak xeex bàyyi leen ñu ne ko suñu xeex. non mënu <laughs> woon football ma mosuma mais damaa xam football. loolu daal bàyyi leen ñu. parce que Bassirou moom ngeen di moom ngeen di parrainé. y a de fortes moom mu nekk seen candidat. mais on parle même de lui en fait. phase bu nekk. ak lu mu laaj mais suñu candidat s'appelle Ousmane Sonko. il faut que les gens soient comprendre comprennent que suñu candidat mooy Ousmane Sonko. loolu kay leer na neen sa ah kon de alhamdulilah. maintenant Macky Sall dafa utiliser un couloir de la mort politique dans la justice contre Khalifa Sall contre Karim Wade l'utiliser le même couloir de la mort politique contre Ousmane Sonko jàllul parce que moom laa woo yaa ngi fàttaliku mars deux mille vingt et un bi ñu ñëwee fii mu tàng. Mhm. suñu émission ba bi ñu génnee sama benn waay dana ma yow sa waa ji yaa ngi nax sa bopp rek mais sa waa ji il est mort nous sommes en quoi en décembre deux mille vingt trois il est toujours vivant loolu yàllaa koy def qu'il soit président qu'il ne soit pas président il a ass il a assumé sa mission historique il va rester dans l'histoire il va rester dans la légende ñu bëgg ko ñu bañ ko fu ñu génn taxaw dinañ leen sonko sonko sonko mais loolu c'est c'est c'est c'est un élément boo xamante ne mais man man à la place du président Macky Sall je mhm. dis aujourd'hui le peuple m'a donné peuple bi mu doon génn démb naan Macky Macky Macky moo génn tey na Sonko Sonko Sonko Sonko maay gore woowaa ji nekk qu'on trouve les moyens de faire une transition pacifique ñu organiser des élections ñu bàyyi ñu war a bokk ba bokk après ñu continuer nekk Sénégal bi ñu war a nekk sinon on va on va on va trouver dans la phase boo ne mhm. bi rapidement waaw ma foofu man parrainage chaque jour ma wax ko parrainage bii Macky Sall indi ce n'est pas un filtre c'est une sélection. jusqu'à présent. jusqu'à présent ma loolu laa gëm chaque jour nit ñi dañ leen wax ne non bu parrainage amul woon ñu amay 65 candidats c'est faux en 2012 parrainage amul woon on n'avait pas 65 candidats Macky Sall moo ñëw 2017 organiser des élections législatives. parce que derrière il avait l'idée des parrainages mu dem parrainé ay nit ne leen dem leen ngeen ut ay ñoo ñu taxaw ci télé bi ne gañewuñu waaye liste bi ñu àndaloon gañe na. mais loolu la def def ko pa def ko def ko def ko prétexte pour parrainage et comme par enchantement classe politique bi ñëpp topp ko mais man je suis mais je suis sidéré de voir que la classe politique ñu continuer système bi ñu la war a contrôler yow mosoo toog ñu jàkkaarloog yow ñoo ne la système bi ni lañ koy contrôler publiquement nga bëgg continuer dem mais man kenn man mënuma gëm man si Sénégal ne quelque un parti comme la la République des valeurs mënul am cinquante mm-hmm. deux mille Sénégal pare en deux mille dix neuf c'est pas possible mënuma ko gëm comme Pape Diop non mënuma ko gëm mais mm-hmm. mënuma ko gëm il faut qu'on il faut qu'on sérieux mais parce que on a un système boo xam ne c'est dans opacité acteurs politiques yi lekkoon ñun ñu booloo xeex li ñu war a xeex ku nekk gisu ñun naan waa waajaak may waaja raw naa topp si gannaawam. merci Bara. léegi nag bu ñu continuer foofu la ñu continuer et les gens surtout euh, euh, euh, du ñun rek ñooy perte tout le monde va perdre. on va mettre ici en place quelqu'un boo xamante ne c'est la France tey je l'ai vu être reçu par le ministre premier ministre de xamante ne. <laughs> non kenn xamul ñaari premier ministre xalaatam a été reçu <laughs> kenn xamul xalaatam ci Sénégal bindul livre waxul xam-xam. yow mosoo ko invité benn émission lañ ko mas lañ mas a def mooy période bi nga xam ne il était dans dans une dans une disgrâce mu ñëw wane waat jëbbal waat si Macky Sall mais exceptionnellement au Sénégal en 2023 on a un président boo xam ne kii ne nous parle pas loolu mënul ne